di gërëm aussi suñu mbokki transporteur yi ba ñooñu tamit ñu ñaanal gërëm lañu parce que ñu ngi jàpp ci dëkk bi. buur yaakaar su merul di tam dana jege. ñoom dañ ciy def fan ñu ngi loger hôtel mais bés bu euh, ba daan. ministre bi nga xam ne mooy affaire muy maître yu jox joxante na ñoom moom rendez ñu yóbbu ko projet bu ndaw kooku du ab maire yi moo ko attas. dëgg la comme fukki milliard ak ñaar muy coopération boo xam ni euh, sunu mbokk yi ñoom ñoo ci jóg ak conseil municipal bu di ci waxtaan. moo loolu comme ni santé bi dugal nañ ko ci assainissement. te Italie ñii ci la ñu bokk ñii moo tax bi ñu ñëwee euh, ñu teew.

loolu bu yembee day nguur dina ne nañ ci waaru leeraay waaye nag wàllu tali yi jafe-jafe yi dina dañ bu baax ndax bu ñu jëlee juróom-benn fukki kilomètre xa def ko ci xàll yoo xam ne ci biir dëkk bi lay jaar ak juróom-benn fukki kilomètres yoo xam ne ci wàllu courant lay doon ah kon de bu boobaa mbuur dina ne nañ te dina jëm ca kanam partenaires yooyu nag ñoo commune bu mbuur ñoom ñooy fas yéene signé xaatimoo boobu diggante ñeenti fan yi ñuy fiy def italien yooyu ñu ngi leen di ñaanal ñu ci jàmm te projet bi jëm ca kaw kanam